mbokk internet yu Senel TV Senel point com ak Senel rajo ñu ngi àtte Oustaz Makhtar Sarr comme ni ñu koy faral di defee Oustaz ñu lay nuyu. noo ngi lay fay Mouhamed di muslu ci seytaane di ñaan yàlla mu defal nu jàmm defal ko mboolem ñi seetaan. Oustaz jamono jii nii euh, jamonoy euh, dox tànk jàmm la buñ ko mënee waxee noonu buñ sukkandikoo si jéego yi nga xam te nii cadre unitaire de l'islam au Sénégal mu ngi koy dox waaye mu tombeek benn jamono joo xam ne ñu ngi dégg ay kàddu yu su yoo xam te nii euh, ñu bëri jàpp na ne lu mën a taal ab réew la euh, ñaari mbir yooyu boo koy boole ci contexte bi ñu toll euh, pour yow ban yoon moom moo gën ngir li ñuy séentu rawatina si jéego yi nga nii te ni cadre unité koy dox ñu mën koo jot. waaw mu mel ni dafa am ay mbir yu mat a ràññee mooy jëmmi jàmm ci boppam ak di ko wut ak am ko mu mel ne ay baat la yu mat a xàmmee te mat a ràññee Sénégal wutuñu jàmm dañ ko am bokkuñu ak wut jàmm ndax xay tàkku fi bu nuy wut jàmm kon liñ war a def mooy sàmm jàmm ji nu am loolu moo war a nekk wax ji mais pas ut jàmm xay amu fi ba ñuy wut jàmm dana am léeg ay yëngu-yëngu yu ndaw yu fi am mais réew ya xay am waa Seneweb du ñu xëy liggéey kenn du dem bureau kenn du dem marché kenn du dem say tool kenn du dem fenn ndax amunu jàmm ñooñu baax na ñu woote ngir wut jàmm waaye ñun dañu war a sàmm jàmm ji nu am te jàmm li koy sàmm mooy li ko maye woon rek lan moo nu jàmm fii ci Sénégal jàmm dañ koy wax pour am ko waaye dañuy jëf ngir am ko wax jàmm jëf jàmm am jàmm waxoo jàmm jëfoo jàmm doo am jàmm réew mi nag kàddu yu rafet moo ko suuxat ay jëf yu rafet moo ko suuxat moo tax ñu am jàmm su nu bëggee continuer di conserver jàmm jooju nu am faaw ñu dellu ci nan lañu defoon ba am ko noonu rek lañ mën a def pour conserver ko mooy réew mi réewum mbaax la ci wax réewum mbaax la ci jëf réew la moo xam ne ni du réewu boddante ci ay xeet du ci diine du ciy tariixa du ci waaso te yooyu noonu ñaareel mooy li mën a taalum réew mooy ay xeet yoo xam ne dem nañu ba ku nekk di wax lu ñaaw jëme ko ci sa morom senegal loolu amu fi woon bokk na ci li jural jàmm ji noo am mag ñi mbokk mu baax sëriñ Fallou Cissé moo doon wax nii dañu indi kal ngir kalee ko réew mi yow da sant jàlloo man ma sant Sarr ñu nekk ay kal ci diggante séeréer ak pël dañu xam ne ñaari xeet la yu dëkk ci réew mi mën nañoo tollu fenn laalante mën naa am seen diggante mbirum xeet ñu jël séeréer ak pël ñu nekk ay kal baatu gàmm ci la dikkeek yu mel noonu diw sama gàmmu la ci ay sant ñu jël ay sant def ko mu nekk kal kii njaay la sant kii jóob la sant kii siise la sant kii loo la sant kii géy la sant kii sekk la sant yu ni mel ci sunu société dangay ñëw sant caam ma fekk la nga mer am noo waxee am noo comporté woo ma ñëw dal ci sa kaw mel ne dama jëfandikoo kàddu gu lay xas mais loo meroon meroon sa mer dootul yokkati mais dafay wàññeeku ndax lan man saar laa sant sañ naa laa wax yenn kàddu yi te du la yëngal gis nga mag ñi stratégie boobu lañ tëral ba ñu sàmmee ko jàmm ju ñu am ba toll fi ñu toll muy pël ba muy séeréer ba wolof nekk koo xam ne moo nekk ci ci milieu bi nga xam ne mooy ñëw léegi ñooñ ñëpp mu jël leen ëmbaat leen dajalewaat leen da ngay dégg baatu sama pël bi sama séeréer bi sama joolaa bi sama nàngam bi jàpp na ne ñooñ ñëpp aw nitam lañu léegi jàmm ji loolu moo nu ko may ci wàllu waaso mag ñi am na nuñ ko ñagee ba réew mi du tàkk di jaar ci wet gu mel noonu ndax ku nekk am na léelée ba ci biir yenn euh, pas-pas yi nga xam ne mag ñi bàyyi nañ ko fi dangay dégg man sama gàmmu la am na loo xam ne su ma ko defee du ma jig bu fekkee ne man nàngam laa yow nàngam nga te muy dëgg yàlla danañu àtte ndax xam nga ne ñun waruñoo laalante ndax ñun nàngam ak nàngam nga xam ne am na lu ñu installé ci biir yenn pas-pas yi ba nga xam ne am na koo xam ne nii ñemewul a tooñ sax moromam ndax gëmloo nañ ko ne boo tooñee sa morom loolu dafa am lu lum lay wàññi gis nga loolu Muhammad ci wàllu euh, xeet yi loolu la mag ñi ñagee wàllu googu noonu le beneen côté bi mooy lu jëm ci wàllu diine mais Sénégal yàlla suturaal nañu ba mag ñi jëfandikoo nañ loo xam ne jiitu na du réew muy tàkk mooy jaaree ci wàllu diine luy firnde bi mooy xam ngeen ne Sénégal bu jotee suñu indépendance premier euh, président gannaaw bi fi tubaab yi bàyyeekoo kan la Senghor la Senghor mooy ban nit nit koo xam ne nii majorité réew mi ay jullit lañu moom mu nekk katolik du ay kilifa catholique ñoo ko jàppale pour mu falu mais kilifay jullit ñoo ko jàppale ngir mu falu ku tudd tudd Senghor tudd Serigne Fallou ku tudd Senghor tudd Serigne Babacar Sy ku tudd Senghor tudd yeneeni kilifa ci réew mi Serigne Babacar Sy bi mu ko jàppalee ba mu taxaw ñu ne ko ah si lu tee kële tuddal ko ku mel ni euh, Mamadou Diack ñu ni mel mu ne tànn loowuñ ma woon ilimaanu jàkk mais njiitu réew lañ ma tànn loo woon te njiitu réew biñ ma tànn loo nekkul ne diine daf ci nekk lu war pour nga tànn njiitu réew mais loolu lan lañ jàngale wane ko foofu mooy réew mi nit ki nekkul jullit warul tax ñu beddi ko jullit bi du beddi catholique bi catholique bi du beddi li nga xam ne mooy jullit bi te ñaari pas-pas yooyu ñoo nekk ci réew mi ci wàllu diine kon côté boobu noonu la ñagee nañ ko noo xam ne nii am na lu jiitu woon nga xam ne nii jullit ñi pare nañoo jël seen kàddu jox ko catholique mu jiite leen kon amuñu problème mu kii catholique la wala kii jullit la ñu ne am na benn réeroo goo xam ne gu fees la lu dul ay détails yu ndaw ci ay gox yoo xam ne nii loolu ba mu jógee la nit ñi jug wax pour mu deñ catholique ak jullit ci Sénégal ñu ne ñu ngay xiiroo wala ñu ngay ŋaayoo dem na sax ba nga xam ne bu jëmee ci côté boobu dafay sensible lool ci sénégalais yi nañu moytandiku ndax diggante jullit ak catholique yi kon côté boobu ñag nañ ko ba jàmm ma nga fa beneen côté bi bu dee julli jëm ci benn biir diine ji la tariixa yi ni ñu bindoo ci réew mi bañ fi nekkee ba tey mag ñi fi nekkoon amul histoire bu ñuy nettali seen diggante ngay dar sa nopp Touba Tiwaawan Njaasaan ak Canaba Yoof ak Medina Gunaas Medina Baay ku ci nekk mag ña sampoon dëkk ya dañoo jëflante woon dajaloo jëflante jëflante bu rafet loolu noonu le ba association islamique yi ñëw ba tey loolu moo fi nekk léeg-léeg am benn xët-xët loo mu ndaw ci diggante yi ci werante mais ci wax rek la yem ñu wax ko ku nekk dem delluwaat ci sa ruq gis nga loolu noonu la ci côté yooyu noonu réew mu tàkk yu mel noonu ñaareel moo ko taal jaar nañ ci côté diine ci pas-pas wala ñu jaar ci côté ay xeet te Sénégal yii yëpp mucc na ci kon kon ñun am nañu jàmm léegi li des mooy naka la ñuy def pour conserver jàmm ga léegi loolu may la jàmm boo demee na ba tàmbali koo gor luy jur ñàkk jàmm mi ngi judd mooy bu ñu demee ba aw nit di attaqué aw nit ngir ne xeet sàngam la ñu bokk ñu koy bay bayal di bàyyi. ak dem ba koy dugal ci mbirum politique comme lu mel ne li mujj xew mbokk mi yëkkati ko Gaston jëme ko ci famille Dias wane ne seen bariwaay ci réew mi bu ñu matee téeméer ci lañuy ñuy yem wala doo gis ñu mat téeméer buñ leen taaloo nangam dara du xew ñi sant sant woo buñ ko déggee lu muy jur mooy xol bu ñëg am ñëgg-ñëgg même ñi santul sant bi sénégalais yu bari biñ ko déggee daf leen a choqué. démb rek maa ngi bind sama page Facebook di poser question euh, ne bu fekkee ne dafa am ñu sant sant wu mel nii ci réew mi ñu ne bariwunu ba tax ñu jàpp ne war nañ leen a taal waa ku tudd tur wu mel nii nag ci réew mi ndax bari na ndax jaas bu bariwul Gaston xaw ma moom ci réew mi ku ñu tuddee Gaston nag ñaata lañ fiy toll. léegi bu fekkee ne nit ki santam bu bariwul tax na mu yeyoo lenn li waa léegi bu tur bariwul naka la a war a yeyoo mais Sénégal kañ la yegg ci niveau boobu. dem ba nga xam ne léegi mbirum politique ak loo ci ci dégg gason dafa affiché wu ci côté état bi Barthélemy Dias affiché wu ci côté opposition bi léegi pour quoi débat bi war a doon débat wu war a tudd sant Barthélemy Dias pour am loo leen di wax am na koo xam ne mi ngi sant Dias politigul politigaanul xëy na sax xamul Barthélemy mais bokk nañuy sant mi ngi ci biir réew mi léegi kooku boo ñëwee di jaaree ci Barthélemy ci santam am loo ko wax mais kooku sokke nga ko kooku yi tamit mën na ëlbatiku ku sant jaas gàtt xel tontu ku sant mbeng am lu mu leen wax ñi sant mbeng ci réew mi ñoomit seen dënn jóg imagineel ku jugoon ndax Sénégal menaces yu bari mi ngi nu wër ndax yi nga xam ne moom moo fi feeñ am na force yoo xam ne ne tey nu ñu xam ñu ngi koy jéem a def ngir mën a jafal réew mi mais lenn lu ndaw rek mën nañ ko jël exploité ko nga xeeb ko léegi nañ xëy rek na kenn ku sant mbeng def na nangam ku sant jaas wala ku sant jaas def na nangam ku sant mbeng mais ku sant jaas deretam yëngatu ku sant mbeng deretam yëngatu mais lu mel noonu lee moo xewoon laataa lislaam di dikk diggante Aws ak rek ay mbokk lañu woon ay doomu baay ñu jege wante mais mosuñoo déggoo di xeexoo suba ngoon guddeeg bëccëg bi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gàddaayee jógee ko Màkka ñëw Madina ci la leen jubale ñoom ñëpp ñu mujj dugg ci biir lislaam nekk ay mbokk nekk ci biir lansaar mais dafa dem ba jëmmi jamono bennoo ginu bennoo fitna wi tàkkoon seen diggante nga xam ne téeméeri at ak ñaar fukk xeex nanu ko yeneen ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëw lislaam benn la leen mais neexul yahuutu euh, yasri bay yahud yi nekkoon ma dina a war a nan la ñu def dañu bàyyi ba gis bis waa aw soog xas rek toog di waxtaan ba reetaan tàppante dënn kenn ñu yebal ko mu dugg ci seen biir rek fàttaliku xare yi doxoon seen diggante ba ci bi ci mujj mooy bi xewoon ca Buath mu ne keroog de waa xasraj seen maam yee ñi leen waa aw su def deretu sët ya daal di yëngatu ne noonoo ni nga nettale histoire bi te deewul noonu ñun kay keroog suñuy maam ñoo manoon ñoom seen maam ñi leen ne déedéet suñuy maamam manoon yéen seen maam te ay jullit lañu yu bàyyi woon xeex lislaam boole leen ñu jug ba kenn ku nekk gàddu sa jaasi woote ne nañ daje ñu wax ko yenent bi yenent bi ñoo dugg ci seen biir yàlla wàccee laaya ne yéen ñi gëm yàlla ba ngeen toppee ñenn ci yéefar yi nañ leen delloo ca fa nga xam ne moom ngeen nekkoon démb te naka ngeen di delloo ca ceddo ga ngeen nekkoon démb te yenent bi nekk ci seen biir di jàng alquran ci seen biir laaya ja ba ko yenent bi eh, jotee ci suñ borom jàngal leen ko la ku nekk sànni jaaseem kii sànni xeejam ñu tegal ñu ñu tegalante ay dënn pour wan la ne ba nga nekk jullit ak loo mën ci doon am na loo xam ne dafa nekk ci nit ki buñ ko laalee loolu dafa yëngatu mooy ñu xas la fi nga bokk yow géer nga léegi dugal nañ yooyu ci politique ay jamono am na terme yooyu yu daan jib ñii géer lañu waruñ leen a dénk géwél lañ waruñ leen a dénk réew ñii ci xeet sàngam lañ bokk waruñ leen a dénk réew pël ba fii la ñu fekk Sénégal président Macky Sall bés bu ñu ko falee pël yi jaasi la ñuy yor ci mbedd yi bu boobaa ko ñu dajal nangam ak nangam mais ana wax jooju noonu la tey mais ay opposants ñoo ko yëkkati woon pour baaree ko yoonam mais bi yàlla nammee mu jot ci réew mi est-ce que loolu noonu la ñu doon tiitalee ñenn ñi tee ñu jot ko tey terme yooyu nga doon dégg ci jamonoy Macky Sall moom ngay déggaat tey jamonoy opposant Sonko buñ ko falee robel yi ca Casamance nangam ak nangam mais yooyu noonu la il ñu arrêté ko te li doy ci kàddu yi nga xam ne doy ci waar mooy bi kàddu yi jibee lan nga gis mooy réaction opposition bi opposition bi xalifa Sall génn fële euh, euh, nu mu tuddati ñeneen ci opposition bi kenn ku nekk génn def poste di ko ñaawlu mais côté pouvoir bi. gisuñu ko def sorti di ko ñaaw ñaawlu mu mel ne kon léegi côté pouvoir bi dañoo cautionné wax jooju noonu la nga xam ne nii waa ji yëkkati na ko jëmee ko ci xeetu jàmbur te ñooñu ñoo waroon a jiitu ci ñaaw la ko waaye bu demee ba nga xam ne léegi politique tous les moyens sont bons lépp loo xam ne mën nga ko utiliser pour dammat sa adversaire bi war nga ko def moo xam ci alal la ci yoon la ci kàddu yu ñaaw la loolu nag tiit ci réew mi jot na yu mel noonu nag moom mooy liy déjjati jàmm ji nu amoon Sénégal jàmm ji nu amoon yii ma tudd nii ci ginnaaw yooyu nu ko mayoon mooy Sénégal réewum teraanga la xeet yi dañoo nekk benn sëylante demalante dikkalante séeréer ba ma ngay sëy ak pël ba pël baa ngay sëy sëy ak joolaa ba joolaa baa ngay sëy ak saraxule ba ña ngay jëflante di demalante amul murit ak tiijaan ña ngay sëylante demalante boo demee kër murit fekk fa sëtu tiijaan soo demee kër tiijaan fekk fa sëtu murit kër laayeen ba kër xaadir ba noonu mais loolu noonu la Sénégal moo ñu may li nu am te yeneen réew yi tàkk ñàkk ko yeneen réew yi tàkk Sénégal li ñu am dañ ko amul moo tax mu tàkk moo tax yenn yi léeg-léeg sax nit mën na ko jéem jéem nga tiit wala kuy analyser rek wax mën na jul nangam ci réew mi mais nag réew mi tàkkee fii nag moo gën a yomb tàkk taal ko tàkkee ci biir Sénégal moo gën a yomb taal Sénégal te bokk na nag ci li nga xam ne nii mooy indi menace bi ba ñëpp tiit mooy yenn kàddu yi bu jibee te dara jiituwu ci yenn journalistes yi ci seen micro yi yéenay jël Maxtaar Sarr bu ngeen jot dékk ko micro muy euh, xawee ko rek di teg wala di tàllaxu di teg su paree ngeen dagg def ko mu nekk buzz mu tasaaroo fu nekk mais xam nga yenn kàddu yi journaliste bu nekk responsable organe de presse bu nekk responsable bu jibee ci sa organe de presse d'accord mën naa ñëw Sénégal fekk ñu def direct ñu jox ma micro ma wax fi toj-toj ndax en direct la ñu woon a xam lan laa bëgg a wax mais Mouhamad mi may defal waxtaan dañ koy enregistré mais bu paree mu yëg ne maxtar Sarr li mu wax bu génnee mën na taalum réew mais bëgg bës bu mu tax ak ñu liir vidéo yu bari mu am lu mu ca gagné bu mu tax mu bàyyi wax waxu Makhtar Sarr googu jàll mais war na ko segg mais léegi concurrence bi ci ku nekk yaa ngi njëkkante buzz sama vidéo bi benn une de temps la def am nangami mi euh, junney vie loolu noonu mooy ñi may tuddee alladina yaabuduuna wii vie nga xam ne ay vie la ñuy jaamu bokk na léeg tamit ci xam bu yenn yi euh, waaye ubbeeku tamit léegi euh, média ni mu bindoo jur na moom it kenn mënatu koo contrôler ndax bi Sénégal war a jël matuwaayam pour ne diw lii du jàll télé sàngam war ko jël rajo sàngam war war ko jël Makhtar Sarr yor na téléphone am am na connexion mën na def live ci même waxtu ba nga xamee ne la amee lu ñuy censuré lu warta jàll la keneen toog moom ca live am wax ko ñu bàyyi ko mu jàll waaye yooyu yëpp mën na nekk lu woyof waaye lu nga xam ne ca tele ba lay jàll ca rajo ba lay jàll ca site internet bu ñu ràññee mu nekk ku ñu naw ci doxalinam lay jàll war nañ ko mën a segg euh, jàmm Muhammad dañ koy dox dañ koy wax waaye dañ koy ñaan ñun ñëpp bu ñu rombee sunu mbokki jullit luñ koy wax asalaamualeykum yàlla nga am jàmm mais ñu ngi koy ñaanal jàmm soo jullee xoolal li gën a foor ci jaamu yàlla asalaatu adamul ibadat mais boo jullee ba sëlmal sa mbokki jullit bi ci sa ndeyjoor bi ci sa ñaa sa càmmooñ imam bi la jiite ku ci nekk jàmm nga koy ñaanal boo jullee li ngay njëkk a ñaan bokk na ci allahuma anta salaam wa minka salaam wa ilayka yaudu salaam fa ahyina rabbana bi salaam wa adxilna al jannata daaraka daara salaam xoolal li ñuy ñaan ni mu ni mu ni mu rëyee pour wan la importance su jàmm yow yàlla yaay jàmm anta salaam wa minka salaam jàmm ci yow lay jógee wa ilayka yaudu salaam ci yow la jàmm di dellu ñu ngi lay ñaan yow yàlla nga dundal nu ci jàmm ray ñu ci dekkal ñu ci dugal ñu ajjana gi nga xam ne ajjana daaru salaam lañ ko tuddee muy këru jàmm kon kay jàmm lu am solo la mais nan la ñuy def ba wut ko ci lay daanalee ci sa biir laaj bi cadre unitaire li nga xam ne ni mi ngi koy jéem pour dox ko ci jàmm xam nga ne naa la jàmm lu am solo la baat bi am na solo ki koy wut mooy ki ko amul ñun Sénégal am nañu jàmm dañoo toll ci conserver ko lan mooy conserver jàmm mooy yi ma tudd léegi ci ginnaaw jàmm ut ko jarul jël ay këyit di ko ci bind nañ bind këyit pour ñu am jàmm déedéet dañuy wax rek nañu wax luy jur jàmm nañu def luy jur jàmm jàmm am mais ñun ñëpp buñ dajaloo xaatim bind këyit na nañu wax ne ñun ñëpp danañu dox jàmm wax ko mais ñu bind ko ci këyit te doxuñu ko waxuñu ko jàmm daam xolal période bi cadre unitaire di doxee pour jàmm am la Gaston génnee fële wax wax joo xam ne nii mi ngi yëngal ay dënn te wax jooju noonu lañ ña signé ne jàmm moom moo war nañ ko signé pour mu am ñi ngi toog déglu kàddu googu jëluñ ci benn matuwaay pour kàddu googu kenn dootu ko waxati su fekkoon ne kàddu gi bi mu jigee procureur jóg na auto-saisir ne ah attention alerte même bu dekkee convocation mooy juddu yeddu ko sax même bu dul ñu teg ko benn daan mais ëllëg keneen balaa yëkkati kàddu goog noonu la dana ko waajaat ndax xam na ne yar baa ngi ni tege yenn kàddu yi boo ko yëkkatee mën na jur fitna waaye léegi bu fekkee ne nañu wax jàmm nañu dox jàmm élection yi na jàmm am avant élection yi ñu bàyyi opposition bi kenn ku nekk am nga pouvoir bu toll nii kàddu gu la neex nga yëkkati ko jëmee ko ci sa morom wala nga yëkkati ko woote ko ci xay te dara du la ci fekk këyit dañ koy signé ba noppi jël ko dugal ko ci ron taabal ya boo sàgganul këyit de sax mën nañ ko jël euh, taalee ko ay pono ci mbedd mi bu boobaa. kon jàmm nañu dajaloo bind signé pour jàmm am nañu wax jàmm nañu dox ci luy jur jàmm. waaye nañu taxawal dëgg ngir jàmm am jàmm kenn mënu koo wutee ci kaw euh, lu dul dëgg jàmm kenn mënu koo wut ci kaw injustice Sénégal yu bari yu fi xew yuy nuru fitna juy tàkk fan la bàyyee ko lu jëm rek ci injustice ci yoon bu doxalul liggéeyam yoon boo xam ne kumba am ndey ak kumba amul ndey la mais defe naa première jéego bi mooy ñu fexe ba ba magistrat yi moom seen bopp juge yi moom seen bopp constitution bi ñu bañ ko def mu nekk yére ñuy nattal ku nekk la la jot ñu solal la ko mais bu ñu àttee dëgg doxal dëgg ñëpp tënku ci dëgg rek jàmm am waaye bu fekkee ne procureur ba juge ba magistrat ba am na ñenn ñu muy jàpp ak ñu muy bàyyi ku ñuy convoqué ku ñu dul convoqué ku ñuy tëj ak ku ñu dul tëj ku far ak buur ak ku farul ak buur loolu buñ ko jëlee fenatal ko jéemu ñëw ut lu ko saafara ba noppi naan na jàmm am na jàmm am li war a jur jàmm ba nañ ko fa ba noppi di wax loo xam ne nii mën naa bañ a jur jàmm